wi am benn euh, micro euh, vox pop bi ñu def euh, si sa si sa gox you know euh, ñu naan am na ñu bari ñu wax ne euh, dañ la kompaloo euh, génnee la nga nekk ci maire bi nga nekkoon Saint-Louis peut-être say project arrangé wu leen parce que xëj na fekk ci woon nit ñi ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg donc bi ñu bëggee pour dijjan dijjanti la it was very easy for them mm-hmm. ma bëggoon rek peut-être nga wax ñu ci loolu noonu apart from that leneen li ma bëggoon a laajte rek mooy ci sa projet yi nga teg yëpp Saint-Louis parce que euh, at the same time ñu ngi naan tamit ne euh, projet yi nga teg noonu saint wi suñ la bàyyi woon te kompaloo euh, wuñ pour génnee la xëj na saint wi dina doon changé boobu ba tey projet yi nga fa tegoon lan moo xamante ni métti na la torop te metti na la torop te nga tegoon ko te nga gis ne ki fa toog rek instant bi nii daf la ko yàqal instead of mu defalal la ko. man jàpp naa ne en tant que individu man Cheikh Bamba Dièye yàqalu ñu ma dara li ko naqarlu rek. mooy que ni liggéey rek moo wóor liggéey rek moo ñu mën a génn ci sous-développement gis nga Saint-Louis boobu dama leen liggéeyal ay kër 68 maisons tabaxal leen benn usine pavé jigal ci ay matériels yu bees tàq élection jot yàlla def li gën ñu dem nga xame ni tabax ay pavé rek moo ci des pour commencer liggéey dëkk bi ñu bàyyi ko fa seng ya naaw toiture ya dem moo ruye ñu koy sàcc di ko bàyyi di ko yàq ba mu jeex tàkk ma bàyyil Saint-Louis douze bus yuy def le seul transport scolaire gratuit du Sénégal pour les élèves et j'ai payé de ma poche pour l'essence ñuy dem ñu jóge fa rek ñu ne bichet dafa yàqu te bichet benn paanu ci dara jotu leen parce que simplement bu ñu circuler ci dëkk ba turu Cheikh Bamba Dièye dina fa des ñu ne non il faut effacer genre comportement boobu moom lay désespéré ci Sénégal am réew buñ ko buggee yokk sa adversaire te ngeen bokk benn réew bu la yàlla suturaalee ba nga remplacer ko la fay baax bu amee yéene ci dëkk boobu yaatalal yokkal ndax doomu aadama ya jariñu ñàkk koo def nag wala yàqu ko mooy wane ne que ni jógewuñu ca l'éthique pas du ceddo en terme de valeur mais du ceddo en terme d'accaparement et c'est ça la très mauvaise perception de la politique bi nga xamee ni des indépendances en maintenant moo ñu fi te ba mënuñoo tinki mbott mënuñoo réaliser suñu bopp mënuñoo assumer les minima yi nga xamee ni moom la un état comme le Sénégal mën a réaliser. et je pense que c'est cela qui est important et man doomu Ndar laa te lu ma am Sénégal moom ma ko defal bu ñu ma yeewoon ni ma kaay liggéeyal Sénégal wala kaay liggéeyal Ndar si la ñu xam ne am nañu jàmbaar am nañu jàmbaaru fàkk tëdd. je suis constitué dans mon esprit et formaté par mon maître spirituel pour être ne esclave du service public je suis totalement dévoué au Sénégal totalement dévoué à la cause du Sénégal ba nga xamee ni ma fierté et ma satisfaction bu ma yeewoo bu nekk mooy ma nekk ci loo xamee ni buñ ci paree Sénégal dina siggi Sénégal dina yëg boppam doomu Sénégal bi dina jot boppam ndax Serigne Touba moo wax ni keroog bi muy jógee Gabon di ñëw ni ijal rujui ila qawmi saadatana wal yow ma jami xalqi niiraana sama borom defal sama ñibbi gii may ñibbi njaareem may ñibbi ndax Tuubaa mu doon texe ki samay samay samay ñoñ te nga fegal ñëpp safara Sëriñ Tuubaa moo ñu dig texe te texe mooy la félicité dans les deux mondes la partie terrestre mooy le développement intégral harmonieux mooy le mieux-être le mieux partagé pour tout le monde et ça ñu ngi fi te olof nee na bu for yombee sëgg jafe. Euh, euh, honorable euh, ñu gis ne que ne li nga xam ne moom moo di sa discours boobu ak léegi ñu ngi koy dégg sa constance doon na loo xamante ni kenn dootu ko natable dañuy ñëw assemblée nationale bu ñu